mi ngi leen di wax ne marhaban ci turu Alhaji Ahmadou. ci turu Alhaji Ahmadou. ci turu Cheikh matijaan Tidiane. ci turu moo leen yebal fii ci kër gii fi étudiants yi di dal. moo leen yebal ci kër gii bi fi étudiants yi di dal. ne na fi étudiants yi di. ne na dal. moo fi dëkkal moom it moo ko fi dëkkal. kon nag yéen yéen ñoo moom ruq bii. kon moom ak ñun ñoo moom ruq bii. yàlla nañu ko yàlla barkeelal. ko yàlla barkeelal yaare bi. barkeel leen barkeel ñëpp ñu fi ñëw. ñëpp ñu fi ñëw yaare bi. alhamdulilah ñu sant yàlla bu baax. alhamdulilah nañ sant yàlla bu baax. dëgg-dëgg yàlla tànnal nañu. ndax dëgg-dëgg yàlla tànnal nañu na gën a kawee na gën a baaxee na mu gën a kawee na gën a baaxee noonu la ñu tàllalee noonu ñu tànnalee noonu lañu yàlla tànnalee yàlla ñu ko yàlla nañu ko yàlla xamal te xiir ñu ci yaare bi te oyofal ko ci ñun te it yàlla na ko yàlla oyofal ci ñun ba mañ bañ mën koo topp nam ñu ko digalee ak nam ñu ko sante bañ man koo topp nam ñu ko digalee ak nam ñu ko sante yaara bi yàlla tëlewul dara te mën nañu koo may yàlla telewul dara te mën nañu koo may yàlla ci ñuy na loolu bokk ci li ñu yàllay may yaara bi ma ziyaara sa sëriñ amaa nag ziyaara sa sëriñ sa barabu sëriñ sa barabu sëriñ xéewalu xéewalu yàlla la xéewalu yàlla la ndax du ku nekk moo ko mën a am ca façon ba nga xam ne noonu lañ tëralee ziyaara ndax du ku nekk moo ko mën a am ci façon bi nga xam ne moom lañ taxawalee ziyaara moom lañ ko tëralee ne lii mooy yoonu ziyaara moom lañ ko tëralee ne lii mooy yoonu ziyaara jokkulante ngir yàlla jokkulante ngir yàlla sakkuwoo ci dara lu dul jëmmi yàlla sakkuwoo ci dara lu dul jëmmi yàlla ja yàlla moom rek nga fay fekk. yàlla moom rek moom nga fay fekk. ndax Cheikh Ibrahima wax na ci benn siyaara. ndax Cheikh Ibrahima wax na ci benn siyaara. ne mbooloo mi ñëw ngeen fekku leen ma fi. ne mbooloo mi ñëw ngeen fekku leen ma fi. ngeen ñëwati fekku leen ma fi. ngeen ñëwati fekku leen ma fi. ngeen ñëw tey fekk fekk ma fi. ngeen ñëw tey fekk ma fi. kon ka ngeen fi daan fekk rek moom ngeen fi fekk. kon daal ka ngeen fi daan fekk rek moom ngeen fi fekk. yàlla rek moo leen tax a génn. yàlla rek mooy ki leen tax a génn. amut place de. amut place de. Dakar ga ngeen bàyyi koo ma nga fa. yàllaa nga fa. waaye nag. waaye nag. dafa am ay feeñukaay ak ànd ak mandargaay ay feeñukaay ak i mandargaay kaay. yonent nee na kenn gënul kenn. yonent bi wa wax na ne kenn gënul kenn. benn place gënul benn place. benn gënul benn place. benn jamono gënul benn. benn jamono gënul benn jamono. lu dut la yàlla def ca place ba. lu dut la yàlla def ca place ba. def ko ca nit ka. def ko ca nit ka. jamono ba. def ko ca jamono ba. loolu rek mooy li ci nekk. alhamdulilah am na am firnde kay fii ci Medina. te loolu alhamdulilah am na firnde ci Medina Baye. ci place yi yàlla tànn def ay mbootam ak ay. ci place ci mbootam. ci ay barkeem. def ci ay barkeem. def ci itam fang jaamam yëpp ñu jógee ci àddina bu nekk di ko seet. def ci it fang jaamam yëpp ñu jógee ci àddina bi fu nekk di ko seet si. di ñëw ci Mérina gi. di ñëw fii ci Mérina. wut barke. di wut barke. di seet si. di seet si. góor ñi fi jaaroon ba. góor góor ñi fi jaaroon ba def fi lii. ñu ko mënee. nan lañ ko mënee. seet si. di seet si. di déglu si xam-xam. di déglu si xam-xam. am na benn tubaab nee na ma. am na benn tubaab nee na ko. li ma jàng yëpp. li ma jàng lépp. lool na lool. waaye toog bi ma toogaayu fii benn waxtu. waaye toog bi ma toogaayu fii benn waxtu. rési résimel na ma li ma jàng yëpp. résimel na ma li ma jàng lépp. dama bëggoon ñëw dëkk si fii. dama bëggoon ñëw. ma dëkk si fii ak yéen. maa ngi dem. maa ngi dem. ma amee alal fii laay ñëw dëkk si. su ma amee alal fii laay ñëw ma dëkk si fii. noonu la Mérina mel. noonu kat la Mérina mel. mooy wane ne barke yàlla ngi fi. mooy wane ne. yàlla mi ngi fi. mooy wane ne tànneefu yàlla ngi fi. mooy wane ne tànneefu yàlla ngi fi. mooy wane ne itam mm, gën yàlla ngi ne it léegi yàlla mi ngi fii ci Medina Baye. yàlla mi ñu bind ñuy doomi dëkk boobu. yàlla mi ñu bind ñuy doomi dëkk boobu. di doomi mbooloo moomu. di doomi mbooloo moomu. mbooloo di doomi waa jamono jooju. di mbool di doomi waa jamono jooja. yàlla nañu yàlla xiir ñu di ko nekk rek. yàlla nañu yàlla xiir ñu di ko nekk rek yaara bi. ci suñuy jikko. ci suñuy jikko. suñuy jubluwaay. ci suñuy jubluwaay. suñuy càkkutéef ci suñuy càkkutéef. ci suñuy mbaax. ci suñuy mbaax. ci nekk école boo xam ne fu ñu nit gisee rek xam ne ñii école Cheikh Ibrahima Niass école boo xam ne fu ñu nit gisee rek na xam ne ñun ci école Cheikh Ibrahima la ñu nekk. Cheikh Ibrahima. dundam li daf koo may doomu adama yi. dundam li lépp daf koo may doomu aadama yi. ci ndigalal yàlla. ci ndigalal mbooleem lu doomu aadama soxla pour kawe rek boo demee Cheikh waaye may na ko. mbooleem lu doomu aadama soxla pour kawe may na ko Cheikh Ibrahima. Cheikh ma jox na ko jaamam ñi. Cheikh Ibrahima it jox na ko jaamam ñi. jaami yàlla yi. jox na ko jaami yàlla yi. yiw. yiw. mbaax. mbaax. xam. xam. tabe. tabe. jàmbaar jàmbaar. wóolu yàlla. wóolu yàlla. ba gën ko wóolu ci sa jëmmi bopp. ba gën a wóolu yàlla sa jëmmi bopp ji. ñemeloo nit. ñemeloo nit. na ko dara jaarul sa digganteeg yàlla. na ko dara jaarul sa digganteeg yàlla. xanaa ci sa jëmm ji rek yaa jaar sa diggante. xanaa yow ci sa jëmm ji rek yaa jaar sa diggante ak yàlla. waaye keneen jaarul sa diggante. wante keneen jaarul sa diggante ak yàlla. sànnal sa jëmm ji rek nekk sa borom. jëmm ji rek nekkal sa borom. sa borom boobu da borom boobu nag mooy kan. borom boobu nag mooy kan. léegi li mu doon wax xale yi léegi. mooy li lii mu doon wax xale yi léegi. mooy kooku di la wax ne man faale wu ma la. mooy kooku di la wax ne man faale wu ma la. allahu ganiyun wa antumul fuqara. lii mu doon wax xale yi léegi. mooy kooku di la wax ne man faale wu ma la. mooy kooku di la wax ne man faale wu ma la. الله غني وانتم الفقراء الله غني وانتم الفقراء يلا كدير لا يين يين اي مسكين رك يلا كدويلو لا يين يين اي مسكين رك يين سوخلا يم سي مون يين يين سوخلا جيم سي يالا سوخلوما سي يين دارا واي مان يالا سوخلوما سي يين دارا كوك مو يالا كوك موي كان موي يالا واي يالا مو موي واخ نك واي يالا مومو موي واخ نه لا مي يونتام تي تي لا مي يونتام ne yow sama jam ne yow sama jaam. doo deñ di jëm si ci man. doo deñ di jëm si ci man. ba ma mujj nekk say loxo. ba ma mujj nekk di say loxo. say tànk. nekk di say tànk. sa nekk di sa làmmiñ. nekk sa loxo. nekk di say loxo. sa cër yëpp. nekk di say cër lépp. ba nga xam ne. ma mujj nekk ba nga xam ne. loo ma sant ma def loo ma sant man yàlla ma def ko. kooku la wax ne faale wu la. kooku la wax ne faale wu ma la. moo mujj nekk ak yow noonu. moo mujj nekk ak yow noonu. loolu mooy loolu mooy yàlla. loolu mooy yàlla. loolu itam mooy logique gu yàlla. loolu it mooy logique gu yàlla. bokkut ak suñuy yëf dara. bokkut ak suñuy yëf dara. man yàlla rek maay def lu ma neex. man maa yàlla. maay def lu ma neex. logique am man maay def lu ma neex. fa'aalun li maa yurid. logique mooy man maay def lu ma neex. fa'aalun li maa yurid. te kenn du ma laaj lu tax nga def. te kenn kat du ma laaj tax yow yàlla nga def lii. mais mu ne man yàlla. mu ne man yàlla. yow yonent bul rey sa bopp. yow yonent bul rey sa bopp. ñii buñ gëmut. ñii bu ñu gëmul. bu mu tax nga rey sa bopp. bu mu tax nga rey sa bopp. su ma neexoon ñoom ñëpp ñu gëm ma. su ma neexoon ñoom ñëpp ñu gëm waaye. waaye. dama bëgg ki may gëm. dama bëgg man yàlla ki may gëm. doyloo ma rek ñëw jëm si ci man. doyloo ma rek ñëw jëm si ci man. loolu rek laa bëgg. loolu rek laa bëgg. waaye ku ma bëgg ku ma ku ma gëm jaxewut. وانت كم قم جفي وما كم بك دويلو مرك من كل لا سوخ واي كم بك دويلو مرك من يالا موم لا سوخ لا كن منو كو حمل سبوب كن نك منو كو حمل سبوب يالا مو كوي ماي يالا موي كي كوي ماي الحمد لله بيني كو يالا ماي الحمد لله بيني كو يالا ماي بولا نانيو كو خامني دك دك خامنا يون وي نخ نعم، بولا نانيو كو خامني دك دك خامنا يون وي تكنا تانكم فم كو ورا تانكم فم كو te na sama taalibe bi tuuti. te Baye wax na ne taalibeem bi gën tuuti. yàlla setal na ko ci bokkaale. yàlla setal na ko ci bokkaale. alhamdulilah. ku amul bokkaale mënoo am lu dul ku bokkaale wut mënoo def lu dul bëgg yàlla rek. ku bokkaale wut mënoo def lu dul bëgg yàlla. ndax lu nekk rek euh, euh, <laughs> voilà. ndax lu nekk rek loolu la. Euh, bon. kon. ñëw nañ fii neri ñëw nañ fii Mérina ziyaare moo dajale ñun ñëpp ziyaare moo ñu dajale ñun ñëpp ziyaare Cheikh Ibrahim ziyaare Cheikh Ibrahim ziyaare li mu fi bàyyi ziyaare limu fi bàyyi ay taalibeem ay taalibeem bàyyi ñëpp ay taalibeem lañ bàyyi ñëpp taalibeem lañ ndax rek óor ci moom taalibe rek moo xóor ci baay leneen lu dul taalibe xóorul leneen lu dul taalibe xóorul ndax bakkan daf cay fekk si ndax bakkan daf cay fekk si soo doxee taalibe taalibe rek nga soo doxee taalibe taalibe rek nga sëriñ bi maa ngi jéggalu rek mu jeex sëriñ bi maa ngi jéggalu rek mu jeex mu jeex tàkk mu jeex tàkk waaye leneen lu dul loolu dafay indi ay complication waaye leneen lu dul loolu dafay indi ay ñu ngi ñëw ñun ñëpp. ñu ngi ñaan ñun ñëpp. ñëw ñun ñëpp. ñu ngi ñëw ñun ñëpp. di beesal kóllëre. di beesal kóllëre. di beesalaat suñuy xol. di beesalaat suñuy xol. di beesalaat suñuy yéene. di beesalaat suñuy yéene. di bëgg a beesalaat suñuy doxalin. di bëgg a beesalaat suñuy doxalin. doxal boo xam ne dëgg-dëgg. moo mën a dëppoog kii taalibe baay moo mën a dëppoog kii taalibe baay la. li ci gën a feeñ. li ci gën a feeñ nag. mooy yar bu mat sëkk. mooy yar bu mat sëkk. nit ku yara diku civilisé wul. nit ku yar yara diku civilisé wul. ndax. ndax. boo seetee addina bi wër la. boo seetee addina bi wër la. ak li ci nekk yëpp ci ay kattani yàlla. ak li ci nekk lépp ci ay kàttanu yàlla. te Baye nee na ni mu bëree jàmm noonu la bëree xay. te Baye wax na ne ni mu bëree jàmm noonu la bëree xay. te aw yoo sax mën na koo soppi muy aw xay ci yow. te aw yoo sax yàlla mën na koo soppi muy ay aw xay ci yow. yàlla moomu mooy moo ñu dajale fii. yàlla moomu moo ñu dajale fii. ñuy sàkku. ñuy sàkku. ak suñ mbooleem ñàkk kattan. ak suñ mbooleem ñàkk kattan. ak suñ mbooleem ñàkk pexe. ak suñ mbooleem ñàkk pexe. suñ mbooleem ñàkk xam-xam. ak suñ mbooleem ñàkk xam-xam. waaye ñu ngi sàkku ci matam googu. waaye ñu ngi sàkku ci mat matak yàlla googu. ci xamam googu. ci xamam googu. ci mënam googu. ci mënam googu. yàlla nañu fare fépp fi nga xam ne suñ manqué teef la. yàlla nañu yàlla fare fépp. foo xam ne suñ manqué téye ma nga faat. ko yàlla faree feesalal ñu ko. yàlla nañu fa yàlla faree feesalal ñu ko yaare bi. yal nañu yàlla xamal. yàlla nañu yàlla xamal. yal yàlla xamal. yal nañu yàlla xamal. yal nañu yàlla may. yàlla nañu yàlla may. te man xoolu naa mi ngi ñëw. te man xoolu na mi ngi ñëw. ndax amul dellu gannaaw. ndax lan amul dellu gannaaw. Baye amul dellu gannaaw. Baye dëgg-dëgg amul dellu gannaaw. ni mu feesee jamono noonu rek lay feesee jamono. ni mu feesee jamono noonu rek lay feesee jamono. lu jamono laaj rek loolu mooy feeñ ci ja mooy feeñ ci njabooti baay yëpp. lu jamono laaj. loolu mooy feeñ ci njabooti baay lépp. laajee xam-xam yéen ko fi ëppale. su laajee xam-xam ñoo ko fi ëppale. bu laajee alal incha allah ëllëg yéen a koy maye waaye kenn dootu leen ko. bu laajee alal incha allahu kenn duñu ko ëppale. bu laajee pouvoir. bu laajee pouvoir. pouvoir mi ngi nii ci buntu bi taxaw. mi ngi nii ci buntu bi kat taxaw. ay góoram rek lay xaar. ay góoram rek moom lay xaar. te yenn góor gënul leen koo mat. te yenn góor gënul ñoo mat. yenn góor gënul leen a dëgër. yenn góor gënuñoo dëgër. genn góor gënu leen a dëggu ci seen waxin. génn góor ñoo dëggu ci suñuy waxin. genn góor itam ëpp leen fit. génn góor it ëpp ñu fit. seen président wane na ko fii ci gàmmu gi ci kanam ministre bi. seen président wane na ko fii ci gàmmu gi ci kanam ministre bi. ne ko li ngeen di doxal du noonu. ne ko lii ngeen di doxal du noonu. noonu rek la góor di mel. noonu rek kat la góor di mel. te yonent ne na góor googu bu manqué ci mbooloo mi mbooloo mi dootuñ dara te yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ne góor googu su manqué ci mbooloo mi dootuñ dara du mbooloom neexalante du mbooloo xam neexalante du mbooloom jeyante du mbooloom jeyante du mbooloom màggal ci lu du dëgg du mbooloom màggal ci lu du dëgg du mbooloo itam bëgg rek bëgg sentiment rek du mbooloo itam bëgg rek bëgg sentiment déedéet mbooloo mu méthodique. waaye mbooloo mu méthodique. mu am xam. mu xam xam. mu xam mu jëm. mu xam fu mu jëm. mu xam li mu àndat lan. mu xamit li mu àndat lan la lañ. mu xam li ko yàlla may lan. mu xam li yàlla may lan la. baay toog naa ay nit ci Kossy. baay toog naa ay nit ci Kossy. ñu ñu ñàkk. nit ñu ñàkk. amuñ mbubb. amuñ mbubb yuñ sol. seen néeg yi gattax la. seen néeg ya gattax la. seen lal yi ay ngatan la. seen lal yi ay ngatan la. xel dajut nag ne ñu ngay raax seen i lal ak nangam ak nangam. ne ñu ngay raax néeg ya wala ñu ngay ay mat la teg ca ngatan ya. beeñ rek boo defaree si néeg beeñ ko rek. soo defaree si néeg daal beeñ ko bam nooy rek doy na. wut sa ngatan teg nga wut sa ngatan teg ca. jeex na jeex na kat. ñoo doon buuri jamono. ñooñu ñoo doon buuri jamono. bàyyi mu ne leen. bàyyi wax na leen ne. jamono ngi ñëw. jamono ngi ñëw. waxuma seen yaram yi de. waxuma seen yaram yi. waaye seen néeg yi sax da ngeen leen di takkal ay yére. waaye seen néeg yi sax da ngeen leen di takkal ay yére. wallaay xàgg nañ ci walla. da ngeen leen di solal ay yére. alhamdulilah waxuma waxuma suur de. waxut suur de. waaye ceebu jën yi ngeen di ceeb yu xonq yi ngeen di ñëwee waa Kaolack. waaye ceeb yu xonq yee ngeen di ñëwee waa Kaolack ya. des na tuuti seen gàtt yi ñoo koy lekk. des na tuuti seen gàtt yi ñoo koy lekk. nga xool foo ci mbedd ñu gis gàtt yi di lekk ceeb. xoolal rek foo dox ci mbedd yi gis xarim bi bay yi di lekk ceeb yi. te wax boobu du dagg mukk. te wax boobu du dagg mukk. ñam ko doon waxat ñoo nekk nii rek lu tax ñam ko doon waxat kat ñoo nekk nii toog. ñooy taalibe yi. ñooy ñooy taalibe ci yàlla. jëm ci yàlla. yàlla bëgg yàlla. doyloo yàlla doyloo yàlla. yàlla wóolu ci yàlla. Cheikh Ibrahima muy bunt. tànn Cheikh Ibrahima muy bunt. wax boobu du dagg mukk. wax boobu du dagg mukk. alhamdulilah jamono bu nekk nag ay góoram rek. te jamono bu nekk rek kat ay góoram rek. mu laa xale yii. moom la wax xale yii. mu ne leen jamono bu nekk ay góoram rek. mu ne leen jamono bu nekk ay góoram rek. su ngeen matee góor rek. su ngeen matee góor rek. soppi jamono soppi jamono. bu ngeen matud ay góor nag. su ngeen matud ay góor nag. ngeen romb fi rek dem ba ay góor ñëw soppi jamono. ngeen romb fi rek. dem ay góor ñëw soppi jamono bi. ñu ngi yaakaar na yéen lay doon. ñu ngi yaakaar na nag ñun ñii lay doon. waaw wax naa leen ne. wax nañu ne. kenn gënuñu ay maam. kenn gënuñu ay maam. bu ëllëgee bu ñuy dajee. su ëllëgee bu ñuy dajee. kenn du am maam mu gën a jege yónnantu suñ maam yi. kenn du am maam mu gën a jege yónnantu suñ maam yi. ndax lu nekk def nañ ko ci lislaam def nañ ko ci alxuraan. ndax lu nekk. def nañ ko ci lislaam def nañ ko ci alquran te foofu rek mooy kawekaay. te foofu rek mooy kawekaay ga. kenn jiituwu leen. te kenn wuñu ji. def nañ ci lu nekk def nañ ci alquran def nañ ci lu nekk def nañ ci alquran contribuer nañ ci sax. contribuer nañ ci sax. ci biir alquran ci biir alquran bu ngeen demee am nañ ay taalif yoo xam ne ci olof rek lañ ko taalif yépp ci xam-xame alquran su ngeen demee am nay taalif ci olof lañ ko taalif. te ci xam-xam alquran rek la. arab ñemewu koo xëccoo ak ñun. benn arab ñemewu koo xëccoo ak ñun. te yàlla daf ko accès yàlla daf ko nangu. te yàlla daf koo nangu. bu ëllëgee dañ ko teg ci kanam yonent ne ko lii ñoo ko def quran. bu ëllëgee danañ ko teg ci kanam yonent. ne ko lii ñoo ko participé ci alquran. ne ko lii. ñoo ko participé ci alquran ji. du mun lu dul nangu ko rek. taxit kat du man lu dul moom yónnante mu nangu ko rek. ndax wér ndax lu wér la. nit ñaa ngi mokkal alquran ba léegi. ndax nit ñaa ngi mokkal alquran ba léegi. lii ñoo ko def ci sa diine ji. lii ñoo ko def ci sa diine ji. lii suñ maam yi ñoo ko def ci sa. lii sa maam yi suñ maam ko def ci sa diine ji. jumaa yii ñoo ko tabax. jumaa yi ñoo ko tabax. ñoo tukki fu nekk. pour tasaare sa diine ñoo tukki fu nekk pour tasaare sa diine ji. kenn gënuñu. kenn gënuñu. ci domaine boobu. ci domaine boobu. waaw te domaine boobu rek mooy gënukaay. te domaine boobu rek mooy gënukaay. nit ñu nit ñu nit ñu nit ñu yàlla teral lañu. nit ñu yàlla teral lañu. teraanga ju doy waar sax. teraanga ju doy waar. Cheikh Ibrahima moo ko génne génne boo xam ne kenn mënatu koo suul. te Cheikh Ibrahima moo ko génnee génne boo xam ne kenn mënatu koo suul. addina bi yëpp ko xam. addina bi lépp. ñëpp ñoo ko xam. yéen a ngi dund jamono ji yéen a ngi dund jamono jii. yéen a ngi dégg ay congrès islamique. yéen a ngi dégg ay congrès islamique. oote Irak. ña ngay oote Irak. Bagdad oote Bagdad. Algérie woote Algérie Libye woote Libye Misra woote Misra gouvernement yi di génne xaalis yu bëri gouvernement yi di génnee xaalis yu bëri ñuy def pour dajale baati jullit ñi nen naka la ñuy def pour dajale ba baati jullit ñi ñeneen nga amee ay fetal di rey ay nit ñaa nga amee ay fetal di rey ay nit ñu tuddee leen ay terroriste ñu tuddee leen ay terroriste ñun ñëpp ñooy dañoo bëgg liggéeyal islam ñooñu ñëpp kat dañ ne dañoo bëgg liggéeyal islam أنا لن لقي الإسلام أنا اليوم لن لن لقي الإسلام قتل جلي ني ci àddina bi قتل جلي ني ci àddina bi rek yéen nag seet leen lu seen maam yi liggéeyal yéen nag seet leen lan la suñ maam yi liggéeyal l'islam demal fii ba Makka demal fii ba Makka foo wàcc rek fekk sa mbokk foo wa wàcc rek fekk fa sa mbokk mu bëgg la lool ni mu bëggee boppam mu bëgg la lool na mu bëggee boppam teralal ni muy teralee ba ba ngay demee Màkka. ba ba ngay demee Màkka. foo dem fekk sa mbokk moo xam ne. foo dem dëgg fa fekk sa mbokk moo xam ne. deret boolewu leen. deret boolewu leen. waaye jihaad fi sabilillah. waaye jihaad fi sabilillahi. ak xam lan mooy dëgg dëggi lislaam. ak xam lan mooy dëgg dëggi lislaam. loolu moo leen boole. loolu moo leen boole. te loolu seen maam yi rek ñoo ko defal lislaam. te loolu seen maam yi rek moo ko defal lislaam. la ko dalee ci Mauritanie. la ko dalee ci Mauritanie. Mali. Nigéria. Nigéria. Niger. Niger. Ghana. Ghana. Tchad. Tchad. ba ba ngay àggee Màkka. ba ba ngay àggee Màkka. ba ba ngay demee Inde. ba ba ngay demee Inde. ba ba ngay demee Pakistan. ba ba ngay demee Pakistan. boo demee fekk nga fa sa maam yi defal la fa ay mbokki jullit. boo demee fekk nga sa maam yi defal la fa ay mbokki jullit yoo xam ne booy xàgg ñu teral la. congrès yi ñoom mënuñ lu dul tasaare jullit. congrès yi. mënut lu lu may tasaare jullit yi. ak leen ak ak ray di leen di rey. kenn ko moomut. boo ko bëggee liggéeyloo rek. boo ko bëggee liggéeyloo. delloo ko ci boromam rek. delloo ko ci boromam rek. ndax moo am li mu bëgg. ndax moo xam li mu bëgg. jaam jaam boromam boromam rek ko attan. li boro boromam rek mooy ki ko attan. moom it tamit boromam rek la xajoo. moom it kat boromam rek la xajoo. ndax Cheikh Ibrahima mu ne. ndax Cheikh wax na ne. ku yaakaar ne mën ngaa jiite nit ñi. ku yaakaar ne mën ngaa jiite nit ñi. ndax maay doomi diw. ndax maay doomi diw. wala maay diw. wala maay diw. dangay nax sa bopp rek. dangay nax sa bopp rek. nit ñi. nit ñi. yàlla ci boppam sax. yàlla ci boppam sax. balañ koo nangul. balañ ko nangul. dañoo gis njëriñ yi mu defal. dañoo gis njëriñ yi ñu yàlla defal. moo tax ñu door koo nangul. moo tax ñu door koo defal. moo tax foofu rek la leen nit ñi mën a jiite. moo tax foofu rek la nit ñi mën a jiite. ci yàlla. ci yàlla. waaye leneen lu dul loolu nekkul. waaye leneen lu dul yàlla nekkul. benn waay wax na ma léegi mu ne ma. benn waay wax na ko léegi ne ko. damay dox Dakar ci benn mbedd rek. damay dox Dakar ci benn mbedd. benn di ma xool ba mu yàgg. benn waay di ma xool ba mu yàgg. mu ne yow xanaa taalibe bàyyi ne ko waay yow xanaa الحمد لله نوكا خامي مونيكو الحمد لله يو نو خامي ني مان تالي بي بايلا دا غينا سيت دا غينا سيت مونيكو دا غينا سيت دا غينا سيت دا غينا سيل شغادي ديسغادي غناو سيلو سيلو باتين غناو سيلك باتين على فوق دا فاي نيك سيلك ظاهر على فوق دا فاي نيك sell ak bëgg sa itam. ak loo bëgg bëgg a sànni sa bopp it nag. loo bëgg a niru niru lu yeneen culture. loo bëgg a lu niru yeneen culture it nag. mënta nekk. mënta nekk. ndax dëgg. dëgg. du jaxasoo. du jaxasoo. benn rek la. dëgg benn rek la. benn dëgg rek a am. benn dëgg moo am. yal na nekk bi ñu la ngaamu. yal na nekk bi ñu la ngaamu. ñun ak Cheikh Ibrahima. ñun ak Cheikh Ibrahima yaare bi. te yaakaar naa ne u wér itam ne noonu la. te yaakaar na ne bu wér nekkat noonu la. ndax seet leen rek euh, loolu ma leen tuddal fii léegi yëpp. ndax seetal rek loolu mu ñu tuddal fii léegi. ne ne ne am na. ne am na. ay mbokki Hausa. ay mbokki Hausa. ay mbokki Yoruba. ay mbokki Yoruba. ay mbokki làkkat yoo xam ne. ay mbokki làkkat yoo xam ne. dégg nga ne am ci ñoom. dégg rek nga xam ci ñoom. ñu xëy nekk sa mbokk nekk say goro nekk say deret. ñu xëy nekk sa mbokk nekk say goro nekk si sa deret. te dara waralu ko. te dara waralu ko. lu dul lu dul. فقلت لا إله إلا الله محمد أرسله الإله ففاضت مني آه، سره فحت آه، نونو مكو واخي كوم نونو مكو واخي رك آه، يالا رك ن يالا رك مو تنكلي نيب سي نيب يالا مو تنكلي نيب اك نام كو واخي اك نام كو واخي كنت ذا وجود وعلم ومال وجاه فأصاب يسار في نار فاحترقت فلا رجعت من كنا من من كنا xam-xam xam xam-xam alal xam halal di borom juddu di borom juddu xëy rek benn safara jógee asamaan lakk loolu yëpp yóbbu ko xëy rek benn safara jógee asamaan lakk lépp yóbbu ko yàlla bu mu delsi yàlla bu mu delsi mu ne yàlla bu mu delsi mu ne yàlla bu mu delsi koku mooy suñ sëriñ koku mooy kan mooy suñ sëriñ Cheikh Ibrahima radiallahu anhu moo ñu jàngal na nag réer ci yàlla baay moo ñu jàngal réer ci yàlla mu ne réer ci yàlla rek mooy jub mu ne réer ci yàlla rek mooy njub boo yàlla rek lañu am kon yàlla rek lañ xam xamoo ne logique gu yàlla rek lañ xam xamoo ne logique gu yàlla rek lañ xam te mooy dëgg te mooy dëgg ndax moom moom rek ndax moom moom rek logique am mooy maay def lu ma neex rek logique am mooy lan mooy maay def lu ma neex rek kenn du ma laaj lu tax nga def te kenn kat du ma laaj lu tax nga def lii boo ci nekkee dootoo mën a xamanteeg nit ñi sax boo ci nekkee dëgg dëgg duutoo mën a xamanteeg nit ñi sax. parce seen wax yi dafay diis bu ndax seen wax yi dafay diis bu boobaa. ni ay lañset yuy bënn. mel ni ay lañset yuy xottee ko bënn. tax. Euh, tax. Cheikh Ibrahima. Cheikh Ibrahima. buy dugal nit ñi. buy dugal nit ñi. dugalu leen ci Cheikh Ibrahim. dugalu leen ci Cheikh Ibrahim. benn bés fii ci jumaa ji. benn ci jumaa ji. dem naa France faju ji ñibbisi na. bàyyi mu ne dem na France faju ji ñibbisi na. beneen bés mën naa dem France faju ji te duma ñibbisi. beneen bés mën naa dem France faju ji te duma ñibbisi. bon nag bu leen jàpp ci bànqaas bi jàpp leen ci dàtt gi. bon kat bu leen jàpp ci bànqaas bi na jàpp ci dàtt bi. bànqaas bi dam fàq rek. bànqaas bi fàq fàq rek. waaye dàtt gi moom mi ngi fi. waaye taatu garab gi muy dàtt bi. mi ngi fi te du fi jóge jàpp leen ci nañ ci jàpp kooku mooy Cheikh ma ak mooy logique ci nit ñëpp dem leen ci yàlla romb leen Cheikh Ibrahima te moom ngay njëkk a wax ana bàyyi bàyyi amut loolu ngay njëkk a wax bon bu la kenn tardé la ku la bëgg a tardé daf laa bëgg a nax képp ku la bëgg a tardel daf laa bëgg a nax ndax dem nga ba ne ana bàyyi mu ne bàyyi amut du taf ay du takk ay portele bàyyi du takk ay portele mooy bàyyi amut du takk ay kurus du sol ay kurus sol ay yu kenn xamut. du cuxur du sol yu kenn xamut. wax itam wax yoo xam ne kenn déggu ko. du wax yoo xam ne kenn mënu koo dégg. wax rek pour nit ñi yuuxu xaal. wax rek pour nit ñi yuuxu xaal. kooku du bàyyi. kooku du bàyyi. bàyyi nit ku logique la. bàyyi nit ku logique la. ku méthodique la. ku méthodique la. seet leen ni mu daan jàngalee. seet leen ni bàyyi daan jàngalee. ni mu daan waxee. ak ni mu daan waxee. dafa toog fii di firi alxuraan. benn bés. bàyyi dafa toog fii di firi alxuraan. di wax ci aalamul akbar. di wax ci aalamul akbar. ko di ko di ko détaillé. di ko détaillé di ko détaillé di ko détaillé. benn waay yuuxu yuuxu yuuxu. benn waay yuuxu yuuxu yuuxu. bàyyi na ki lu mu yuuxu. bàyyi waaw kii lan lay yuuxu. man li ma wax lu yuuxu loolu def cee nekk. man li may wax. lu yuuxuloon ni def cee ne. lu ñuy déglu pour xam ko lu ñuy déglu la pour xam ko. génne leen ko kooku saytaane la. génne leen ko kooku saytaane la. loolu moo doon moo doon moo doon logique gu bàyyi moo doon méthode am. loolu moo doon logique gu bàyyi moo doon méthode am. bëgg nit ñi dellu ci seen xel yi. bëgg nit ñi delloo ci seen xel yi. xam ne yàlla boo amut xel bugg la yàlla boo amut xel bugg la. xam ne yàlla soo amut xel bëggut la. te te dëgg la. te dëgg la. ñuy nettali mu ne yàlla bi mu bindee bakkan ak xel. mu ne yàlla bi mu bindee bakkan ak xel. daf ne. xel may kan daf ne xel man maay kan moom yàlla yàlla ko wax loolu yàlla moo ne ko xel yow man maay mu ne ko buur bu tedd mu ne ko buur bu tedd nga xel wax loolu mu ne ko yow nag mu ne yow nag mu suufe mu ne ko jaam mu ne ko sopp naa la mu ne ko sopp naa la soppit sopp naa ko ku la sopp naa ko bind bakkan daal di bind bakkan dal di koy taxawal. di koy taxawal. ne ko man maay kan. ne ko man maay kan. ne ko lu ci sama yoon. mu ne ko man luy sama yoon ci yaay kan. yaay yow maay man. yow ay yow man maay man. mu ne yóbbu leen safara. mu ne yóbbu leen safara. ñu yóbbu safara. ñu jël ba bakkan yóbbu ko safara. lakk lakk lakk lakk lakk ba. lakk koo lakk lakk lakk lakk ba. yàlla na delloosi leen. yàlla na delloosi leen ma ko. mu ñëw. ñu ñëw. nga ne maay kan. mu ne ko bakkan yow nga ne man maay kan. ko man sama nekku ci. mu ne ko man sama yoon nekku ci yow yaay kan yow yàlla. Mm, yow yaay man maay man. yow ay yow man man. mu ne yóbbuwaat leen safara. mu ne ko yóbbuwaat leen ñu yóbbu lakkat yi. ñu yóbbu lakkat yi. delloo si. delloo si. nga ne maay kan. nga ne maay kan. sama yoon nekku ci. sama yoon nekku ci. yóbbu leen safara. déedéet yóbbu leen xiifal leen ko. yóbbu leen ko ngeen xiifal ko. ñu xiifal ko matut genn wàllu waxtu sax. ñu xiifal bakkan matut genn wàllu waxtu sax. ma ne wéy jaam bu torox bi. mu ne wéy maay jaam bu torox bi. yow yaay borom bu tedd bi. yow yaay borom bu tedd bi. mu ne mu ngoog rek lañ lay yaree. mu ne mu ngoog noonu rek kat lañ lay yaree. xiifal rek. xiifal rek. mooy yàlla ay jaamam. mooy yàlla ak i jaamam. moom rek lañ soxla. moom rek lañ soxla. moom rek lañ bëgg. moom rek lañ bëgg. bu amee alhamdulilah sëriñ bu mel ni Cheikh mu teg ñu mu jub lool. bu amee alhamdulilah sëriñ bu mel ni Cheikh Ibrahima mu teg ñu yoon wi mu jub lool. bu ñu bu ñu ci kenn jëlee. bu ñu ci ay sentiment jëlee. bu ñu ci ay sentiment jëlee. bu ci ay doya di jëlee. bu ñu ci mbokkoo jëlee. bu ñu ci mbokkoo jële bu ñu ci xaritoo jële bu ñu ci xaritoo jëlee. nañ yokkal suñ gëstu rawatina nag surtout yéen yéen ay borom xam-xam. yokk suñ gëstu rawatina nag surtout yéen yéenay borom xam-xam yi. yéenay nit ñi war a leeralal nit ñi. yéenay leeralal nit ñi. dafa naa léegi xam-xam amut arab amut anglais amut. amut amut amut français. xam-xam esprit rek la. wax na ne léegi xam-xam amul arabe amul anglais amul français. ruuxu rek la. ruux rek la. ci ruuxu ga rek àgg nga ci dayoo nekk. boo àggee ci ruuxu ga rek àgg nga ci dayoo xam-xam. jëriñ nag moo ci des. jëriñ nag mooy ci des. yal nañu ko yàlla defal yéen. yal nañu ko yàlla defal yaa rabbi. yal na yàlla yëkkati ci yéen oote Cheikh Ibrahim. yal na yàlla yëkkati ci ñun. woote Cheikh Ibrahima. yal na ko yàlla yokk leer ci yéen. yàlla na ko yàlla yokk leer ci ñun yaa rabbi. Cheikh dafa mel ni mooy jant. Cheikh Ibrahima dafa mel ni mooy jant. waaye yéen yéenay fi jant bi sotti leeram. waaye ñun ñooy fi jant bi di sotti leeram gi. kon nag góor góorgóorlu. kon nag nañu góor bañ a bàyyi jant bi mu lakk ñu rek. bañ bàyyi jant bi mu lakk ñu rek. ci ci topp ay bakkan. ay xew-xew yu bëri ngi xew. ay xew-xew yu bëri mi ngi xew. ay oto yu bëri ñu ngi xew. ay oto yu bëri mi nga xew. ñëpp yal nañu yàlla jubal. ñëpp yal nañu yàlla jubal yaare bi teg ñu ci kaw yoon yi nga xam ne. teg ñu ci kaw yoon wi nga xam ne. ñuy taseeg njëriñ. ci ñuy taseeg njëriñ. ku ko ci yàlla may. ci yàlla may nag. teg na la ci kaw yoon. teg na la ci kaw yoon. ku ko amut itam. ku ko amut itam. suñ ko mënul dara. suñ ko mënul dara. ko seetaan rek. nañ ko seetaan rek. bàyyi ko. bàyyi ko. nga xam ne Cheikh Ibrahima nee na. te xam ne Cheikh Ibrahima wax na ne. képp ñëpp seen mbaal yi daanu nañ man sama mbaal kenn mënu koo daan. ñëpp seen mbaal yi daanu nañ. man sama mbaal kenn mënu koo daane. mbaar sama mbaar kenn mënu koo daane. ñëpp seen mbaal yi daanu nañ. ñëpp seen mbaal yi mbaar yi daanu nañ. man sama mbaal kenn mënu. man sama mbaar kenn mënu koo daane. ci sant yàlla nag. kii sant yàlla nag. ci kaw sant yàlla la ko ci kaw sant yàlla la Cheikh Ibrahima waxee loolu. mbaar moomu buñ ko mënoon a daane daanu na bu yàgg. mbaar moomu suñ ko mënoon a daane daanu na bu yàgg. daanu na bu yàgg. konoon daanu na bu yàgg. ko bëggoon a daane bëri nañ lool. ñi ko bëggoon a daane it bari nañ lool. te amoon ay pexe. te amoon nañ ay pexe. amoon nañ ay kattan. amoon nañ ay kattan. waaye man mu ne sama mbaar kenn koo daane. waaye baay mu ne sama mbaar mënu koo daane. te mbaar moomu nag ñun lay keral. te mbaar moomu kat ñun lay keral. nañ fexe ba xeeyoo ker googu. nañ fexe ba xeeyoo ker googu. nañ nañ dimbalante ñun ñëpp ci góor góorlu nañ dimbalante ñun ñëpp ci góor góorgóorlu. benn xale ñëw na sànq ne ma man dama bugg a jokk ci yëf yi dama bugg a mel nii dama bugg a mel nii. benn xale ñëw na ci moom ne ko man dama bëgg a yokk ci yëf yi dama bëgg a dama bëgg a ko. góor góorgóorlu tey laaj ñi xam. mu ne ko góorgóorlu tey laaj ñi xam rek. dama lay xiir nag del laaj doomi baay yi. dama lay xiir del laaj doomi baay yi. ñeme wu ñoo fenal seen baay. ñeme wu ñoo seen baay. wu ñoo fenal taalibe yi. ñeme wu ñoo fenal taalibe yi. lii dëgg rek lañ la wax buñ ko xamee. lii dëgg rek lañ lay wax buñ ko xamee. suñ ko xamut am nañ maandu te xaw ma ko. suñ ko xamut am nañ maandu te xaw ko. du ooteel leen dara de. du ooteel leen dara it nag. waaye loolu mooy dëgg. waaye loolu mooy dëgg. ci ñoom ñemewut waxal bàyyi lu mu waxut. kenn ci ñoom ñemewut a waxal bàyyi lu mu waxut. ci ñoom ñemewut a ànd ak nit ñi di sóobu ci yoon woo xam ne wóor na ko ne lii du yoonu njëriñ. kenn ci ñoom ñemewut a ci yoon woo xam ne wóor na ko lii du yoonu njëriñ. kon nag. kon nag. mbir mu nekk. mbir mu nekk. Baye daana wax ne Lamine Gueye daana ko wax ne. Baye daana wax ne Lamine Gueye ko wax sëriñ bi kuy dem ba xamatoo foo jëm. sëriñ bi kuy dem nag ba xamatoo foo jëm. dellul fa nga jóge woon. dellul fa nga jóge woon. loolu moo fi nekk. loolu mooy li fi nekk. nañ dellu fa ñu jóge woon. nañ dellu fan fa ñu jóge woon. nañ jéem a xam. nañ jéem a xam. nañ jéem a xamlu. nañ jéem a xamlu. nañ jéem a nañ jéem a ràññee. nañ jéem mat ni suñ bàyyi. nañ jéem mat ni suñ bàyyi nekkee woon. bëgg yiw. bëgg yiw. bëgg mbaax. bëgg mbaax. bëgg kawe. bëgg kowe. bëgg jëriñ ñeneen. bëgg jëriñ it ñeneen. taax yi ñuy gis fii Mérina. taax yi ñuy gis fii Mérina. yu be yu yu yu yi fi xew yëpp. yi fi xew yëpp. ay ndesit rek la. ay ndesit rek la kat. xam ngeen ndesiti lan la am. xam ngeen ndesiti lan la am. siti ay meew ndesiti ay neew ndesiti ay ndarkoso ndesiti ay ndarkasa ndesiti ay mango ndesiti ay mango ndesiti ay manqanaase ndesiti ay manqanaase yooyu rek la yooyu rek la kat ñi ko jëmbat ñëpp yooyu lañ daan lekk ndax ñi ko jëmbat ñëpp kat loolu rek lañ daan lekk waaye am nañ fuñ jëmoon waaye nag am nañ fi ñu jëmoon ñoom. yàlla am na lu mu leen avance. yàlla am na lu mu leen avance gum. fii ci àddina bi. fii ci àddina bi. fu nekk ngay nit di fa jógee di ko seet si. fu nekk nit a nga fay jógee di ko seet si. boo ñëwee loo doo mun rek lu mooy gërëm ñoo ñu weesu woon. te boo ñëwee doo man lu may gërëm ñoo ñu weesu woon. ñooñu ñoo ñu jur ñun ñii. ñooñu kat mooy ñi ñu jur ñun ñii. ñooy seen i sët ak seen i doom. ñooy seen i sët ñooy seen i doom. yàlla nañu yàlla def seen i sët ak seen i doom. yàlla nañu yàlla def seen i sët ak seen i doom yaa rabbi. Amar ibn Xataab Omar ibnu Khattab daana dajale sëti saxaaba yi ak ak seen doom yi daana dajale sëti saxaaba yi ak seen doom yi ne leen puukarewu leen ne leen puukarewu leen na ku nekk wax lu baayam defal wala maamam defal lislaam na ku nekk wax lu baayam defal lislaam wala lu maamam defal lislaam bu ko defee ñuy jóg su ko defee kenn ku nekk jóg. keroog yow mu Badr sama baay moo defoon nangam. keroog bi sa Badar sama baay defoon nangam. mu waxut sama baay sama maama defoon. keroog bi sa Uxud sama baay defoon nangam sama maam nangam. Fathu Makkata. keroog Fathu Makkata. keroog rasootu yëpp tudd. tudd mbooleem kay tooli xare yi. ku ci nekk wax li sa maam defoon ku ci nekk wax la ca sa maam defoon. Omar ibnu Xataab ne leen gaynde yooyu ñoo leen jur. Omar ibnu Xataab ne leen gaynde yooyu nag ñoo leen jur. bu leen soppeeku seen gannaaw mukk nekk di ay jinax bu leen soppeeku seen gannaaw mukk nekk di ay jinax wala ngeen dinaay muus di sàcc lekk nit ñi di sàcc lekk nit ñi te soppeeku jinax dafa yomb lool te soppeeku jinax dafa yomb de pour ma dund e. ci turu baay yomb na lool pour ma dund ci turu baay yomb na lool dajale leen ma addiya léegi ngeen dajaleel ma dajaleel leen ma yomb de pour ma dund ci turu baay yomb na lool pour ma dund ci turu baay yomb na lool dajale leen naa diye léegi ngeen dajaleel ma. dajale leen naa diye léegi ñun ñu dajaleel ko. waaye ci kaw lan. waaye ci kaw lan lañ koy dajalelee addiya. yal nañu yàlla dimbale. yal nañu yàlla dimbale. yal nañu yàlla dimbale. yal nañu yàlla dimbale yaara bi. yal nañu yàlla sàmm. yal nañu yàlla sàmm. yal nañu yàlla def dëgg-dëgg yee taalibe baay. yal nañu yàlla def ñu dëgg-dëgg taalibe baay. yal na nangu siyaara bi. yal nangu suñu siyaara. ci saayir ak ci baatin. ci saayir ak ci baatin. soxla yi ngeen fi dikkee yëpp. soxla yi ñu fi dikkee lépp. alhamdulilah. alhamdulilah. maa ngi di gis ngeen ay nit ñu kawe. ci ñu gis ñu ay nit ñu kawe ci àddina. ci fu nekk. ci fu nekk nag. góorgóorlu leen rek. nañ góorlu rek. gën a dëgër. gën a dëgër. ñeme. a ñeme. bàyyi nee na olof wax na ko yàlla neen la. bàyyi lu dul yàlla neen la. looy wut rek am ko. looy wut rek am ko. looy wut rek am ko. looy wut rek am ko. Baye daana wax ak nit ñi ci làmmiñ. Baye daana wax ak nit ñi ci làmmiñ. ak jëf ak jëf. léegi portele lay wax ak ñun. léegi nag portele lay wax ak ñun. portele ñu suul na portele yëpp. portele Baye. suul na portele yëpp. ni jëmmam ji suulee woon jëmm yëpp. ni jëmmam ji suulee jëmm yëpp. ni waxam yu suulee woon wax yëpp. ni waxam yu suulee woon wax yëpp. du duñ ay nit yi ordinaire. waaye duñ ay nit yi ordinaire. alhamdulilah. asalaamaaleykum wa rahmatulah. asalaamaaleykum wa rahmatulah. yàlla yàggal na fi tam. ñaari laaj ma koy laaj. Hmm. laaj. waaw laaj borom xam-xam lañ koy def. waaw. <laughs> may laaj daal. cosaani ziare fu mu bàyyi ko daal. lan moo waral ziare bi daal. ziare wala ziare. ziare Medina bi. ziare diggante jullit ak jullit yàlla ko santaane. ziare Medina bi. ziyaare Medina bi mu ngi bàyyi ko ci taalibe yu mag yi ñoom Baye Mbaye Baye Cheikh Omar Touré Serigne Aliou ak ñoom taalibe yu mag yi ak Serigne Ousmane Ndiaye ñoom Moussa daje daal waxtaan ci baay waxtaan waxtaan xam nga taalibe baay bu dajee ak moromu taalibe baay ñu waxtaan ci baay dañuy fàddu ah bu ko defee nag waaw lu ñuy defal baay nag ñun bu ko war a defal nag ah nañ ko ziyaare mooy moo indi ziyaare bési ajuma bi ndax moom lañ ko daan def ak lan ak lan moo waral ñu ko def bési ajuma bi daal. Euh, bési ajuma de toute façon dinay gën di taseeg moom. dinay gën di taseeg moom ndax toujours dàkk barkeloo ci julli ajuma fii ci pays bi. Mhm. dàkk dàkk julli si ji ah. dàkk si fi julli gi fi jàkk fi si kër si ajuma dàkk fi euh, wasifa Euh, idée boobu mooy gën a wax ñu def ko bési ajuma dàkk ci bésu bés bu màgg boobu rek bési ajuma bés bu màgg la ci lislaam bés bu màgg la ci euh, benn euh, nit ñëpp dañoo am bésu feet mboolem nation yi am nañ bésu feet ñi ñi ngi seet benn yoon ci at yii ngi seet ñaar yoon ci at lislaam am na ñetti feet ñaari feet ci at mi muy tabaski ak tamxarit am na feet semaine bu nekk mooy bési ajjuma nit ñu nekk nag ni seen feet yi di gën a amee ci àddina noonu lañuy gën a jàkkaarlook yàlla bés penc am na ñoo xam ne benn yoon lañuy gis yàlla bés penc mooy ñuy atu feetu benn bés am na comme yahud yi bés ba leen yàlla musalee ñu mucc ca muus ñu mucc ca na bés boobu dañ koo jàppee feet muy bésu assuran ñu di ko feetu ah mooy tamxarit euh, bi yonent ñëwee gis ñu ko lu tax ngeen di ko feetu feetu ci diine nag toujours dañ koy def ci ci ci ci ci jaamu yàlla ah bési ajuma bésu feet ci jullit ñi dañ koy def bésu jaamu yàlla muy bésu julli ajuma bi ci boppam feet la ndax xam nga julli bër bu set ñeenti rakka la mais bési ajuma kom feet la te feet dafa war a am discours war a am jaamu moo tax ba ñu may ñaari rakka yi ñu def ko discours muy xutba yi ñaari rakka yi ñu julli ko ndax feet la bu ko defee nag mu nekk feet semaine bu nekk am nañ feet ndax li ñu yàlla sant semaine bi yëpp def nañ ko julli nañ suñ julli juróom ba semaine bi wàcc na léegi may nañ leen ajjuma bi ngeen daja feet ko ngeen daje feetu ko kooku ñu daje feetu ko ajuma bi itam yàlla wax na ci ne bés buy àddina di tukki ñuy dajeek yàlla bési ajjuma lay doon bési ajjuma lépp loo xam ne yàlla bind na ko dañuy tiit ba ajjuma ji di weesu ndax dañuy ragal ne tey jii la bés penc di taxaw nee na doomu aadama rek ak jinne ñooy sàgg ne bés boobu mais lu dul loolu rek dafay toroxlu yàlla ci bés boobu ba bés boobu passé euh, bési ajuma ci <coughs> bés yi gën ci bés yi la euh, ndax yàlla moo ko tànnal jullit ñi pour ñu feetoo ko juif yi ñoo tànn aset tubaab yi ñoo tànn <coughs> dimanche jullit ñi nag yàlla moo leen tànnal ajjuma ba indi na benn sóora ci alquran mu ngi tudd sóoratu jumaat yi moom la ñu jullee ajjuma lu gën a bëri mm. yusabbihu llaahu samaawaati sóoratu jumaa la tudd mm. euh, ay ay ay ay mbóot yu bëri ci biir ajjuma yoo xam ne tax na jullit ñi di euh, sopp seen bés yi daje yu ne noonu ñu di ko def ci biir ajjuma ji yonent wax nañ am na ci benn waxtu woo xam ne lu ci nit ñaan yàlla boo dajeeg waxtu woowu yàlla dina la ko may ak lu mën ci doon mm-hmm. wax nañ ne nag waxtu woowu fan la nekk ci bés boobu ndax ci fajar la nekk waxtu julli fajar ndax diggante julli fajar ak julli suba ci diggante boobu la nekk am na ñu wax ne diggante boobu la nekk ndax diggante iqam ba ba ñuy kabare ndax diggante boobu la nekk wax nañu diggante boobu la nekk eh, wax nañ séddale séddale séddale de ci du jeex du xaaj xam nga lu lu lu lu baax dafay cher ah xel yëpp dugg nañ ci vérifié nañ ko euh, waxtu wu nekk ci bis ajuma bi jox nañ ko ko ah Cheikh Matidiane moom nee yaakaar na ne gannaaw julli tàkkusaan ba ba jant bi sooyee kuy seet waxtu woowu seet ko foofu moo tax ñu samp di ci sikar sikar ajuma ngi jant bi ak naa ñaanaa la waxtu woowu pour ñu fekkee fekkee ko mhm. ah? waaw waaye fixé wuñ ko nag ne ajuma la war a doon par force mhm. waaye nag ngëneel yi nekk ci biir ajuma dañ ko ciy dàkkaale ñu def fatiha sàllaxe ak naas yi ñetti salaatul fatiha ñaan yàlla may ku wér te yàggal ko ci suñ kanam برهام باء وراء ألف ثم ها ميم فيض تيجان جخن نينان